loo xamante ni am nañ ko ñun sénégalais am droit de parole ci lii xew ci dëkk bi day wax ni président bi autant il dira à ñi mu àndal kontaanul si ñoom autant nous on dira qu'on n'est pas content de lui fa lay yem. justement kon nag boo fa yemee dañuy daal di dugal rek nga xamante ni ñoom ñoo ci gan euh, nga ne euh, ah ba tey état bi daf leen yoreel. xaalis bu bëri. ay Soriba kamara waaye. mën nga ñu wax ci tënk ci lu gaaw comme amuñu temps. te bëgg a waxtaan mu leer. nga jox ñu l'essentiel. lan mooy xew-xew bi. bon l' essentiel avant tout ma nuyu Sénégal yëpp. àdduna sa mbokk militaire yëpp homme de tenue yëpp di leen nuyu. li xew lenn la ñun guerre ci boppam amul grade ñëppay progressé ndoo pour mener laa guerre pour gagner ko guerre tu vois lépp lépp lépp ngay gis ci guerre bi ay dagg bopp téye moo si gën a tuuti ah xam nga avec les rebelles yeneen yeneen kon ñun suñu bopp tey bu ñu ñëwee civi dafa war a am si ñun ñu séparer ñu créer les grands blessés ah les petits blessés te loolu amul fenn lépp dee dee dee sax a gën dof xam nga kon grand blessé du dof ah. maladie intérieurement moo gën dee saxu ko gën ni kon léegi amputé nan la mën a nekkee un grand blessé non c'est pas vrai loolu président moom c'est le chef suprême de l'armée chef suprême de l'armée bi mu ñëwee wax waxam ne généraux yi ne armée yéen seen bopp def leen lii mais dañ ko war a def mais armée ñoom nanguwuñ ko def tey moom si boppam bu bëggoon léegi ñu def ko ñu def ko parce que moom la fi yàlla teg kenn sutu ko moo sut ñëpp. gannaaw suñu borom da ngeen dem guerre ñëw jox ñu leen. ñu waroon jox dañu jox ñi dix millions villa dix millions kër ba pare augmente jox leen seen pension mixte pour seen famille di faju comprendre rappeler leen ba pare di leen augmenter chaque tous les années suivant kon léegi ñun suñu bopp ñu bàyyi ñu diviser ñu ne ñii ñooy am ñii du ñu am kon loolu mënul nekk est-ce que ñële ñoo ñu gën a nekk que des combattants de ce pays man xoola nga gën ma yàgg ci armée bi commando nga gën ma nekk gradé man je sais que maa la gën nekk commando parce que man j'ai le sang kodo mooy daw si man hmm. est ce que xam kii court sur kon man awma dara lu may ragal sama li ma war a président daf ñu koy jox si nii wala si nële man damay wax pour ñëpp dégg ah. parce que ñun ñi ngi préparé nag aussi parce que xaar bi dafa yàgg tout récemment boole nañu le ministre Fodé sii di Kaba c' est le force armées ministre forces armées kooku mooy défendre droit de l'homme man bi mu ñu boolee moom sax dama ne affaire bi ça y est c' te ministre bi wax naa ko avec les officiers man ne ko monsieur le ministre mu ne ma woy man ne ko c' est pas le président mais c' est les officiers de l' armée ñi ngi nii toog mais nañu régler sunu affaire officier bu amee problème régler ko ñoom ñëpp c'est des invalides tous les officiers mais dañu fayeeku ñoom ñëpp nii dañu régler seen premier président tey bu bëggoon affaire bi c'est lui le chef suprême de l'armée moom la fi yàlla teg bu bëggoon léegi affaire bi régler day régler. tout à fait en tout cas. Euh, waaw loolu ci kàddu yooyu la ñuy dem rek jëli ñun suñu page publicitaire et on retrouve le plateau. à parier avec One Expert. Gagnez gros. Pariez et gagnez avec One Expert. Pariez et gagnez avec One Expert. Pariez et gagnez avec One Expert. Pariez et gagnez avec One Expert. One Expert, bookmaker fiable. Situé à Dakar au Sénégal, l'Institut interafricain de formation en assurance